bi rëm nag xel yep jaxso ndax te ñi ngi naan Sonko la ñi ñi ngi naan du mom en tout cas daal lu ci mëna am. ba léegi ma ngi def ni leeral kut ndax dafa guma choix. balaa ñu ciy gëna sori nak dama bëgg askan bi xam ne man ñom la fi nekkal. ñom ño tax ma egsi tay te duma mësa denj leen fi nekkal. li nga wax moy dëgg. di jotali seen kaddu te di jotali baat ñi amul baat. do fekk dañoo nanguwul nek seen i lolé problème bi. dëgg-dëgg nag jot na Sénégal moom boppam. billaahi wallaahi. dañ ñoo nootal nootal noot ba ko wax. mu dóor grenade sonn nanu. noot bi dafa doy. teg si nag di jaay doole askan bi di leen mettital te xamuñu ne yàlla mooy borom doole. jaay doole baaxul Youssou Ndour wéy nga ko. jaay doole bi dafa ëpp. te en plus ñemewuñ koy wax dëgg ku nar a wax dëgg rek. benn solution la jàpp mooy la jàpp tëj. loolu nag moo fi war a jeex.

sama diine ak sama ngor ak aas bi ma toll mayu ma man may témoin ci loo xam ne xaw ma ci dara ndaxte tuumaal doomu aadama dafa nekk lu garaaw loo xamante ne nii boo ci témoin loo xamul rek ëllëg yomal xiyam duñ ko leeral dëgg du romb nopp bu complet sax amuñu benn information bu complète ci biir mi ci lii de mooy Sénégal amagoo ay information yu complet ba pare di woote. mais fii defuñu ko duma dem uyu leen. kon xanaa dafa am lu bëgg ci mbir mi. moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp. parce que bu ñu ko nangoo nekk na baat boo xam ni. sa waay fii léeg-léeg nit dem ba bëgg wax xorom sax billaay wallaay mais yàlla ñu yàlla bësal ba suñuy wax oyof. te en plus nekk na wax boo xam ni bokk na ci wax yi gën a ñaaw ci àdduna bi rawatina ci Sénégal ay wax yoo xam c'est terre à terre quoi ay yoo xam ne xam da lay won lii mën nañ ko fabriquer de toutes moo tax ma bëgg nga gën ñoo ñëwaatal ci wax ji pour mu leer. ku mel ni man. waaw. dinaa dem cib kër. waaw. boo xam ne wéetuma fa ak nit. waaw. waaye nu tuuti tuuti juróom benn nit a ngi foofu ci biir kër gi. xanaa kër gi kon étage la. du étage du dara. kan nga fekk ci kër gi. fekk fa nit ak jabaram ak seeni doom. ak ak seeni employé. waaw. caméra de surveillance nekk fa. waaw. ma ñëw di fa siif nit benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon. waaw. loolu est-ce que xel mën na koo nangu. déedéet. mais c'est bizarre. lii loo ko yaakaar. lii ab complot la. bu jugee fan. te du kenn ku dul Macky Sall. découragé naa nag sama man de damaa rus. ci yàlla mbaa li du ab complot buñ teg ci waxte yi ak li fi Idrissa Seck def. ba Sénégalais yi dootuñu am jot lu dul di wax ci Ousmane Sonko siif na Ousmane Sonko siiful. li woné ni mbir mi ab complot la. waw wax naa ko ci sama communiqué. comme lan. yag nañ ñoo alerter nañ gaa yaa ngi leen pour jaaree ko fan. fas yéene wuñ ko jaaree fudul ci fa ngay fajo ah xam nga loolu lu tax nga fay dem tamit. fu may dem te mu fa dara lu bon te faju yóbbu ma fa gis ma lu tax ma war a xëy ne dematuma fa. te li ma gëna a ci mbir mi mooy. ñeneen viol répétitif la. manam kuy siif ay yoon yoon. loolu xel mu ko nangu. waaye nag li coow li bari bari bari waxtaan wax dëgg jàll kenn du Adji Sarr. yow Adji Sarr. bu fekkee ne li ngay wax amul gàcceel nga say mbokk te sax say doom am nañ way wudul fay. yow Adji. ndaxte lii bu fekkee ne da koo def ngir lu neex nit na ko leer na yàlla du baale tuuma. yow Adji. bu fekkee ne li muy wax dëgg la tamit. yàlla na ko yàlla àtteeg Ousmane Sonko. bu fekkee ne Ousmane Sonko li ngay waxal ay sos la yu Adji Sarr def ak ñu ko yabal. yàlla na leen yàlla àtte. ndaxte atte yàlla moo gën bu nit te lu waaye atte fii di ko atte ëllëg day metti rek tamit mais dëgg mooy féete kaw ndaxte tuuma dafa ëpp ci xale sax waxuma laa père de famille man de sal ku yaakaar ne mën nga ma jënd pour ma ma jënd pour ma jaay sama ngor di la waxal lu la neex xamal na yaa ngi ndax sa bopp ndaxte damaa bëgg ku diiñ te ku doy loolu li ma doon laa te li ma doon tey ginnaaw yàlla askan bi la kon boobu peuple bi maa ngi pour yéen man de lii laa wax mbaa yéen loolu ngeen wax a wax Ndoye Ndiaye ko defee kon suñu maam mën naa def ñaan ñaan ba beneen yoon. wa sam si ma dafa. amiin.